dal leen ak jàmm seen seen production di ñëwaat ak yéen nag lii di seen série famille sénégalaise sama gars yi nag mun nañ ni kii di Marlo commencé na di yërëm Soxna Batoor ndax su ngeen bàyyee xel que nii Soxna Batoor actuellement nii dafa nar a waye di waye di bi nga xamante ne yaakaar naa gàcce bu mu si nar a jëlee xamul fenn fu mu koy fay jee moo tax nag kii di Marlo commencé na ko yërëm carrément ndax euh, gis nañ ni euh, dernière euh, sequence bi nga xamante ne moom la Marlo def doy na waat trop ndax nee moom yërëm na kii di Soxna Batoor soxna Bato ñu commencé koo yërëm ndax euh, bis bu euh, sëriñ boobu doon ñëwee daal di wan euh, vidéo yi nga xamante ne moom lañ doon sikk foofu si néeg ba yaakaar naa loolu noonu lu doy waar la te lu ñaawa ngi noonu ndax euh, am jëkkër ñu fase la ndax ba pare bëgg a dem yàqalaate li nga xamante ne moo nekk euh, ñi nga bàyyi kër ga moo nekk soxna bat kii di Mariétu ak euh, Marlo bëgg a yàq seen diggante moo tax nga dem ba si sëriñ ngir tëdd ak moom pour nga am li nga bëgg yaakaar naa loolu noonu see énorme ah. moo tax sama gaay nag loolu noonu dégg ko sax dafa ñaaw waxtu ma laa di ko gis moo tax nag soxna Batoor yaakaar naa bu dee nit la rek. bis bu bis bu xamee ni gars yi yëg nañ vidéo boobu noonu normalement dafa war a dee ndax euh, gàcce boobu moom euh, ku ko mën a dundaale rek yow jàmbaar nga quoi moo tax na soxna Batoor nag euh, yaakaar naa chaque fin saison métital moo koy jàpp te yaakaar naa boobu léegi mënu fexe ba am jom nañ patienté nag xool affaire nu muy demee xool ndax am dinañ wane video bi ou pas samay gars yi nañ resté à l'écoute et à regard pour comprendre li nga xamante ne moo nekk saison bi jaa jëf.